Malick Thiandoum ñu ngi lay nuyu di la dalal ci mi FM maa ngi lay euh, fay di nuyu auditeurs Rewmi FM Mhm. ngay journaliste euh, di chroniqueur euh, tamit ci wàllum làmb lañ la ci euh, gën a ràññee tey ji ñu daal di dakkal ba jëmmi jamono combat de lutte yi nga xam ne ñu ngi ko doon waajal ci fan yi ñu dëgmal muy affiche Balla Gaye B52 ak kii di Siteu ak Papa Sow ñu ne mbas mi moo ko waral tey ji noo jàngate dakkal googule waaw dakkal bi ñu dakkal lépp lu nga xam ne jëm na ci wàllu làmb ci jamono ji Euh, metti na trop ci amateurs yi metti na ci mbër yi metti na ci promoteurs yi. Mhm. parce que ni ñi ñu ngi doon xalaat ni comme combat yi euh, benn ayubés rek moo ci des. Mhm. mënoon nañu bàyyi ñu tëgg ko après décision bu ñu jël ñu soog ko jël ndaxte euh, promoteurs yi def nañ ci xaalis bu bëri mbër yi waajal nañu seen bopp pendant plusieurs mois. ba dara desu ci lu dul bëre loolu metti na. Mhm. mais metti na mais lu nga xam ne la mën nañ ko comprendre parce que tey jii ku nekk xam na ne. troisième vague coronavirus bi mi ngi def ay njombe mm-hmm. mi ngi def ay musiba ci biir réew mi mm-hmm. te nag euh, bala nga ne naam ne fa balaa ngay tal fo wala bëre wala sport bu mu mënti doon dafay fekk wér-gu-yaram am mm-hmm. donc autorité yi bu fekkee ne dañu jël seen ay matuwaay pour dakkal lépp lu nga xam ne jëm na ci wàllu organisation du làmb rek ay ay ndajeeg ne ni mel dañuy wax ni loolu c'est normal ñu jël ko parce que fi mu ne situation bi moo ko laaj mais jàpp naa aussi Euh, mënoon nañu gën a xalaat balaa ñuy jël décision dakkal hmm. ndax pour man ci suma gis-gis am na hmm. yeneen alternative yu nga xam ne euh, mënoon nañ ko taxawal ndax boo xoolee hmm. ci àdduna bi ñi ngi def tàggat yaram parce que tamit covid bi kenn xamul kañ la fi jógee te euh, il faut que nit ñi continuer di dund il faut que nit ñi continuer di def sport il faut que nit ñi continuer di def seen ay activité boo xoolee barki démboo njaay la ñu organiser coupe d'Europe des nations barki de mbool yaay la ñu organiser euh, organiser coupe euh, Copa America. Mhm. jamono ji may wax ak yow Jeux olympiques yi ñu ngi koy amal mais loolu yëpp dafay fekk ñu teg ay matuwaay ci wàllu euh, wér-gu-yaram lu ñu tuddee protocole sanitaire bu nga xam ne képp ku ko respecté war ngaa mën a organiser. je pense que loolu waroon nañ ko mën a teg ci taabal ji. Mhm. mais nag euh, jàpp naa ni aussi promoteurs yi bi ñu gisantee ak gouverneur ñoom dañoo jàpp ni organiser à huis clos mënuñu ko def. Mhm. ndaxte loolu risque bu rëy la ci ñoom parce que amuñu benn taxawu amuñu benn mesure d'accompagnement kon ñoom ñu dakkal moom moo leen gënal. mais vraiment. Mhm. métti na métti na trop dina am conséquences yu métti métti ci ñoom ak ci mbëri conséquences yooyu lay justement donte dégg nañu yenn promoteurs yi ne amul dara lu mu yàq ndax dañoo dakkal rek euh, ba jëmmi jamono ba tël euh, fan yi euh, date yi ñii di mbëri ban conséquence lay am ci ñoom. mais promoteurs yi bu ñu waxee loolu xëy na dañuy rafetal rek mais mënul bañ a am conséquence parce que tey bu fekkee ne da nga tëgg combat joxe nga ay avance. def nga campagne euh, de de de, de promotion. Mm-hmm. te loolu yëpp da koy fay kenn mayu la ko publicité yi ngay jàllale ci télévision yi face à face yi nga xam ne def nañu ko. Mm-hmm. loolu yëpp ay alal la ju nga xam ni dugg na ci biir euh, làmb yi te ci gafaka promoteur bi la joge mm-hmm. donc promoteur bi. mënul bañ am yëg-yëg ci li nga xam ne mooy dàq nañ ko ci làmb yi dina euh, dina am ay conséquence parce que lépp loo defoon da koy defaat. campagne publicitaire bi da koy defaat li nga xam ne mooy campagne d'affichage bi nga xam ne dañ ci fay ay ay millions da koy defaat euh, di nga fayaat télévision yi pour ñu jàllale waat sa ay sa ay publicité ak lu ni mel hmm. face à face yeeg yëpp da nga koy defaat kon loolu yëpp xaalis la bu nga xam ne da nga koy génnewaat te amul dara lu nga xam ne wuutu na ko fa kon ñoom yëg nañu bu baax dàq bi ñu dàq làmb beneen bi ci des aussi. Mhm. Euh, moom moo di ni mbër yi ñoom yëg nañ ko bu baax a baax a baax. li mhm. tax ñoom ñu yëg ko moo di ni d' ku ci mel ni Siteu ak Papa Sow man ñoom laa gën a yërëm. Mhm. ndax ñaari at moo ngi nii mënuñu fexe ba sëgg bëre promoteur bi ñàkk na ci ay millions mënul fexe ba organiser ko kon Pape Abdou Fall ku naan promoteur yëgul dàq gi parce que dañ ko ràddal rek. c'est parce que da ngaa jegewul Pape Abdou Fall Pape Abdou Fall perte ci làmb jooju du ko wax ay noonam. Hmm. donc perte na ci lu bëri mais mbëri ñoom aussi dafa gàllankoor ci ñoom ndax dañoo loon ba nga xam ne war ñu bëri ñu dàq yëf yi. Hmm. ñu laat ba mu des daanaka euh, ayu bés ñu dàqaat yëf yi. donc la nga ko préparé woon ci wàllu waajtaay moo xam ci sa yaram la muy entraînement gi yëpp da nga koy reprendre la nga dépensé woon. ci wàllu mystique parce que ku ne xam na ni làmb ak xar fa xuufa ñoo ànd da ngay dem rooti waat rootiwaat mm-hmm. donc loolu metti na torop ci ñoom beneen bi nga xam ne moo ci des moo di nit seen carrière dafay xaw a am tuuti frein ndax ñoom tàggalikoo ku nekk wutiwaat leneen mm-hmm. continuer sa plan de carrière moom la ñu bëgg mais jamono ji dañu bloqué wu ci benn combat bu nga xam ne ñaari at nga yenu ko di daw metti na ci ñoom Balla Gaye dafa jël ñeenti avance tey ji euh, il faut que mu revoir encore préparation demoon na INSEPS def ci xaalis bu bëree bëree bëri. Mhm. ba dara desu ci lu dul sëgg bëree ci semaine bi ñu ne la dàq nañ ko. Bombardier la même chose donc tey jii mën nañu wax ne euh, ci mbër yi am na wax dëgg yàlla njeexital bu métti métti métti ci wàllu seen yaram ci wàllu seeni koppar ndax amatuñu sax lu ñu fayee sëriñ amatuñu lu ñu waajale seen bopp te amuñu euh, rallonge parce que cas de force majeure bu fekkee ne cas force majeure la promoteur bi donc loolu aussi dafa metti ci ñoom metti ci metti na ci mbër yëpp metti na ci amateurs yi donc euh, wax dëgg yàlla ku leen yërëmul moom da nga leen a juru tey jii ci làmb ji sax justement euh, tudd nga ñaar ñi nga xam ne toog nañu presque deux ans ba réew ñu euh, donc mu bari ci ay cas lool mu doon ñaari saison yoo xam ne boo mayul euh, nu lay nekk duñ ci gis làmb duñ ci am làmb tey jii ndax loolu tamit du gàllankoor discipline bi. waaw wax dëgg yàlla bu ñu doon ne bëre la dañuy wax làmb ji def na kaat am. <laughs> waaw fi mu toll nii moom làmb ji moom def na kaat appui métti na lool ndax ñaari at a nii. yu nga xam ne li ñuy dund metti na lool euh, gis nga jamono yële mbër yi génnoon nañu fi. Mhm. muy l'association des VIP daal di def un cri du mhm. euh, ki nga xam ne mooy Boy Niang organisé woon na fële ca Pikine pour wax ni ñoom sonn nañu damm nañu mënatuñu donc mais euh, taxul force Covid 19 xaalis bi nga xam ne génn na ci rogalaatul ba egg ci mbër yi yenn promoteurs yi nga xam ne dañu régulariser woon seen ay combat ñoom lañu jox as ndàmpaay. Mhm. donc loolu tey wane na ne. ëllëgu làmb war nañ ko xoolaat parce que tey jii ku ci nekk bon di promoteur yaa ngi xalaat leneen loo def lu dul organiser làmb mhm. wala boog li nga yenu nga yenneeku ko ba bàyyi làmb parce que tey euh, liñ ci ñàkk ci ay millions bëri na trop mhm. donc aussi moi je pense que tey euh, li waroon état mooy jéem a xool nan lañ leen di jàppale ndaxte jàppale leen jàppale mbër yi nga xam ne am nañu combat ba def seen xaalis ba heure bi mhm. dara mënatuñu ko parce que tamit euh, wax dëgg yàlla mbaam gàtt na waaye ci jur gi bokk te force Covid 19 boobu war ko mooy làmb dina am ëllëg bu lëndëm lëndëm te fi mu weesoo mbas mi nga xam ne ñu ngi koy dund jamono ji làmb ji euh, dernièrement mooy at yu mujj yi gis nañ ne euh, jafe-jafe yi bëri na ci muy violence bi nga xam ne euh, ñu ngi ko ciy tudd saa su nekk gis tamit ne promoteurs yi ñu ci bëri dañ doon wax ne yenn cachet yi fay ko jaralu leen ko ba mu andi benn coow ba tax na ñu bëri bëri tamit euh, maanaam euh, li ñu bëree euh, mën nañ ko compter tey ji ndax loolu yëpp taxul làmb ji ñu tege ko nële wala sax mu mu mu jóge fii non non non làmb moom mënu fi jógee parce que làmb mooy suñu sport national moom mooy suñu aada mooy suñu cosaan jëggaani wuñu ko fenn jusqu'à la fin des temps lamb dafay am mhm. euh, te amoon nañu tamit espoir ndaxte euh, Gaston bi nga xamee ni tey dellu si na ci lamb joxe euh, Balla Gaye ñeenti avance VIP yëpp ku ci nekk tey am nga combat Luc Nicolaï également dellu seem donte mi ngi ci ay jafe-jafe mi ngi yor combat bu nga xam ne xamagul nu mu koy def muy diggante Ama Baldé ak Modou Lo nga xool Pape Thialis Faye également moom moo tëgg Euh, diggante Boy Niang numéro 2 ak Tapha Tine moom tamit euh, combat boobu daaw ba ren mi ngi ko yor xamul nu mu koy def donc loolu yëpp dafay wane ni euh, wax dëgg yàlla làmb bi ngi doon amaat espoir pour dundaat mais tey dañoo jot uppercut bu nga xam ne wax dëgg yàlla bu ñu kaaw a tamit def nañu quatre appui donc làmb fi mu nekk nii. am na lëndëm lëndëm bu mu nekk am na jafe-jafe yu mu nekk promoteurs yi ñu ngi ci euh, wax dëgg yàlla coono yu tara tara tar mbër yi ñu ngi ci coono yu tara tara tar ak lii xew lépp nag mën na indi ay gàllankoor maintenant lu jëm ci wàllu violence. Mm. toujours man dama koy dàq ñu bëgg a jël euh, euh, làmb rek lëkkale ko ak violence parce que tey du bu ñu fàtte mukk li xewoon ci stade Demba Diop ba fii ñuy wax ak yéen kenn footballatu fa. Mm-hmm. football moo fa amoon ñuy compter ay juróom-ñetti nit ñu ci ñàkk seen bakkan. Mm-hmm. maa lay wax sànq ni la bu ñu xoolee yi tamit de par le passé am na lu xewoon ci àdduna bi muy le drame. du Eysel. Mm-hmm. diggante final bu amoon ci diggante Liverpool ak Juventus de Turin keroog néew yi nii lañ leen doon nii lañ leen doon compter le drame de Furiani ca Bastia foofu aussi ay nit yu bëri dee nañ fa donc nawetaan yi boo ko xoolee li fay am ci violence amul ci làmb donc du làmb rek moom moo am violence sport bu amee xëccoo am joŋante rek day am lu ñu tuddee passion am na ñu nga xam ne nag ñu maîtriser seen bopp te yaakaar naa ni euh, ñu ci bari seen problème mooy mën nañoo fo waaye nanguwuñoo ñàkk te nag sport ku koy def da ngay xam ne ñaar moo ci am wala ñett mooy gañe match nul mbaañu ñu la donc loolu nag ku ko sóoraale wu ci sport da nga di nga indi ay jafe-jafe mais am na liggéey bu am solo bu nga xam ne war nañ ko sumb ñun ñi nekk ci làmb ji mm. moo xam ñi nga xam ne dañu féete ci wàllu information ndax am na liggéey bu nga xam ne mooy conscientisation maanaam gën a ñaax nit ñi. Mhm. bu ñu bu ñu di wax ak ñoom mais liggéey bi ma nga war a doore ca écurie ba wala ca école de lutte ba. Mhm. Euh, mbër yi également am nañ ci responsabilité parce que yow mi bëree ji bu say supporter defee ñoom mais dañu sanction bi bu ñëwee du la fi bàyyi. kon nag ñoom war nañoo sensibiliser seen i fans club sensibiliser seen i xam leen ni ñun ñooy wuti. yàlla mooy maye bu ñu yàlla mayee nañu sant bu ñu xañee yi tamit nañu sant dem wutiwaat te xam ni yàgg nañoo bëre di daan ay nit tey dañ ñoo daan nañu nañoo sport nañu sportif donc loolu moom moo moom mooy li nga xam ne liggéey bu rëy la bu ñu war a def ñun ñëpp pour que euh, dal am ci milieu làmp tey tamit euh, Malick dafa am li nga xam ne seetlu nañ ko amateur yi euh, muy sport business bi nga xam ne dafa mel ni moom la mbër yi gën a euh, mettre en avant ndax léegi làmb yi bëreetul donc ku ci am chance am combat da ngay exploiter li nga xam ne mooy ressource bi nga ciy am mais passion bi nga xam ne moom lañ doon moom lañ doon bégalee amateur yi ñëw bëree ak yooyu dafa mel ni moo ngi gën di génn ci làmb ji waaw loolu euh, moom dañ koy dañ dañ koy dëggal parce que nit ñi léegi dañu jiital li nga xam ne moom moo di wutum koppar. Hmm. Euh, te nag je pense que loolu également mënuñu leen ci ŋàññ parce que kuy yëngu ci biir da nga ci bëgg a gis sa bopp am ci teraanga te le concept de sport business bu ñu fàtte ni ci Mohamed Ndao Tyson le départ mbër yi jël exemple ci moom mu nekk royuwaay ndax gis nañu ni réussir na carrière la nga xam ne gagné na ko ci làmb tey euh, tax na mu am yeneen débouché bay liggéey liggéey bu nga xamante ni bu bu dul làmb yi tamit mi ngi gagné àddunaam donc loolu tax na tey jii ku ci mel ni Balla Gaye gis na loolu mi ngi ci tànk yooyu Modou Lo mi ngi ci tànk yooyu yeneen mbër yi ñoom euh, Eumeu Sène ak ñoom ñëpp tey jii euh, defar seen ëllëg ci la ñu nekk dëgg la loolu dina xaw a gàllankoor tuuti. passion bi amoon dëgg dëgg dëgg dëgg ci biir làmb euh, parce que ñu ci bari dañuy jéem a fexe bañ a daanu pour ëllëg seen kashe gën a yokk. Mhm. te loolu dina frayé tuuti euh, li nga xam ne moo doon charme làmb ji xeex ba ci daan am euh, fitna bi nga xam ne doon na am ci biir géew bi entre mbër loolu yëpp dafay xaw a wàññeeku parce que calcul yi moom mooy bëri mais nag loolu yëpp du tere itamit làmb ba léegi. mi ngi am euh, passion bi mu doon am nit ñi ñu ngi koy bëgg ba léegi te combat yi aussi bu ñëwee lu ci bari dina neex. et tamit ci limite yooyu le tey copinage gi ñu gis maanaam euh, ku ci mel ni euh, donc benn mbër jóge Pikine ne duma ma bëre kii parce que suñu papier bokk suñu papier ànd daanaka muy exemple bi ma joxe rek tey loolu tamit lan la mën a kase ci dynamique làmb ji. mais loolu loolu dafay yàq lu bëri parce que tey bari na ci mbër yi nga xam ne dañuy wax ni gox bi laa dëkk mbër bu dëkk gox boobu du ma bëree ak moom. Hmm. mais bu ñuy wax derby bu ñuy wax dër bi mooy ñu nga xam ne dañoo bokk gox di bëre. Hmm. loolu mooy dër bi te loolu dafay gën a yokk passion wu làmb dafay gën a doxal làmb parce que tey am na ay combat yu nga xam ne ay combat de rêve la mais kenn xalaatul tey mu am. Hmm. par exemple Ama Baldé euh, mënoo xalaat mu bëre ak doomu Double Less. Hmm. te pourtant loolu waroon na mën a nekk. Ama Baldé xalaatoo mu bëre ak Boy Niang numéro deux. Hmm. te pourtant loolu waroon na mën a nekk. et cetera et cetera donc loolu dafay dem ba indi gàllankoor te gàllankoor bi ci bi ci bi ci gën a bi ci gën a doy waar moo di ne tey euh, bu fekkoon ni par exemple. Ama Baldé dafa bëre ak Modou Lo jël jël ndam ci moom ci jël titre roi des arènes bi képp kuy mbëru Pikine di nga xaar ba mu jógewaat ci loxo Ama nga soog a bërewaat ak moom kon yow mënatoo dégg roi des arènes tant que mi ngi ci loxo doomu Pikine donc loolu day indi ay blocage day indi euh, ay limite ci combinaison yi nga xam ne waroon nañ ko am te je pense que war nañ ko xoolaat parce que mbër moom euh, mooy trésor moroomam kenn ku ci nekk war nga mën a bëreeg sa morom donte yéen a bokk gox ngeen bëre ku nekk may sa morom xaalis mais après jàmm dellu si mais nag malheureusement actuellement ni bëri na ay calcul ak ay considération yu nga xam ne dafay indi gàllankoor ci montage yu affiche yu bëree bëri. jeexaleeg MMA yi tey ji ndax amu leen tiitange yéen ñi chroniqueur làmb euh, mbër yëpp bàbbeeku dem ci wala mën nañoo toog ñaari saison bañ koo bëri. waaw MMA bi moom dañu ci dañu ci rek euh, wax ne alhamdulilah parce que dafay indi beneen beneen bunt pour pour euh, pour, pour mbër yi parce que mm. aussi mënuloo toog rek benn saison nga bëri ci benn combat wala boog nga toog di def ay année blanche alors que am nga beneen opportunité beneen sport bu nga xam ne mën nga ko pratiquer pour gagner ci sa sa vie. Mm. donc loolu dañuy wax ni man damay gis ni rek beneen alternative la pour mbër yi am doole mais MMA mënul concurrence lamb parce que bokkuñu. làmb suñu aada la suñu cosaan la askan bi ñoo ko bëgg ñoo ko moom kon loolu dara mënu ko rey dara mënu ko concurrencer mais nag euh, sport la bu nga xam ne tey. mën nañu jàpp ni beneen buntu la pour mbër yi mën a amaat beneen buntu bu ñuy utee xaalis. Mm-hmm. tey jii Bombardier ñi ngi dafay waaj dem retraite mais moom nee na préparation bu muy def nii du pour préparer préparer lamb rek mais day préparer beneen carrière muy carrière MMA. ba tax na même poids am daf ko war a wàññi ba cent vingt kilos parce que yenn poids yi kenn du ko nangu ci MMA. tey boo xoolee Reug Reug mi ngi ci MMA bi jël na ñeenti combat bëreegum na benn xawma ñaar mu dese ko ñaar. Mhm. Siteu bëre na ci MMA bi yeneen mbër yi ñu ngi xool naka la ñuy def ba dugg ci loolu. donc loolu dafay mel ni rek dafay indiwaat beneen but parce que ñu ngay def MMA di def làmb. Mm. kon mën nga ŋarale di def MMA di def làmb te du wàññi dara ci làmb ci. d'accord Malick Thiandoum ñu lay jaajëfal bu baax a baax. jaajëf.